Sénégal coowu pétrole daf fi bëri woon ko daf fi woon trop trop trop trop. dégg-dégg yu bari y avait des gens qui nous disaient que on a commencé à produire en 2016 ñu ngi doon produire pétrole bari bi ñu ngi génn ñu ngi koy jaarale fii muy dem. aujourd'hui euh, coow yooyu amoon fii sa s'est dissipé avec euh, euh, le premier baril bi nga xam ni génn na fii on avait accusé des gens détourner alalu Sénégal def fi reportage sàcc na 6 mille milliards u nit aujourd'hui on a on a on a vu que li ñu doon wax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dara amu ci phrase donc mm. euh, euh, accusation yooyu taxawul li ci am importance mooy ban njëriñ la ban jeexital la pétrole bi di am par rapport à la dans dans la société sénégalaise pour les populations parce que le président de la République Macky Sall bi nga xam ni moom moo am chance pétrole bi génn ci moom jëloon na benn loi boo xamante ni moo koy encadré le la loi 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion issue de l'exploitation des, des hydrocarbures mmh. donc prévoiroon na des deux fonds benn fonds boo xamante ne intergénérationnel la ak benn fonds boo xamante ne stabilité la maintenant puisque dans le cadre de la continuité de l'État je pense que le gouvernement actuel dina ci sukkandiku taxaw ci loi boobu nga xam ni moom la ñu voté woon pour permettre à l'État du Sénégal d'organiser li li nga xam ni mooy di nga xam ni moo jóge ci <clears throat> jóge ci pétrole bi maintenant nag du am ay conse mënul ñàkk ay conséquences néfastes par rapport à la pêche par rapport à à l'environnement mm. par rapport à à beaucoup de choses maintenant nag il faut aller vers ce qu'on su nekkee ay ay ay ay répercussions niveau de de de la pêche de il faut aller vers la reconversion je pense te loolu foofu la ñuy xaar le ministère de l'éducation nationale pour arrimer la formation par rapport à à de nouvelles métiers yi nga xam ne dafa war a ñëw avec euh, l'avènement du pétrole. Mm. donc foofu la ñuy xaar euh, le ministère de l'éducation foofu la ñuy xaar état bi mais daal njëriñ li ñu communiquer ci ñu bari parce que jàpp sénégalais yi jàpp nañ ni pétrole bi ñëw na rek fi mu ne nii dangay toog affaire bi ñëw fekk la fa da ngay am cent mille francs par jour da am cent mille francs par mois nga fekk ko sa compte donc il faut une bonne beaucoup de de communication la question mu leer ci bopp sénégalais yi ne malgré pétrole am na. mais soo liggéeyul amoo métier yu ci jëm pour nga gis pour nga gis euh, njëriñ li dina xaw a jafe donc il faut mu am communication boo xamante ne état bi war na ko fi def pour expliquer population sénégalaise par rapport au au bienfait et et truc euh, par rapport a à à cet hydrocarbure là bi nga xam ni dina ci am dina dina mun a jëriñ Sénégal. mais demander à l' état aussi fexe comme ni ñu doon wax démb trouver des usines de transformation. pour ñu mën a raffiner pétrole bi pour ñu mën ci jëriñu. Mm-hmm. voilà directement daal